Gamtel Special, a program that gives you insight about our company, its products and services, and of course, or newest technologies in town. As you know, uh, we've been talking to you about our latest uh, product in the market, which has been the 3G family, the 3G Express, the 3G Nafa, and the 3G Bandaba, which of course you customers have also agreed that as the best and the fastest internet services in the country. But of course today as a company we've brought you a new service that will make communication affordable, cheap and easy to you. Like we always say, our logo is saying uh, creating a brighter future in telecommunications in the Gambia. And of course, beyond the Gambia, uh, today we have come up with a new service called Wahbetas. Uh, Hello and uh, welcome to another edition of the Gamten Special and welcome back because it's always good to be back. And today in the program, not we just want to talk about Gamtel products and services, but we also have a package, a surprise to talk about and with me in the studios to talk about those stuffs and make much more. Um, I'm going to be a little bit biased here, even though he's the only man in the building um, inside the studio today. Um, mm. They said ladies first, but now I'm going to change the rules today. Instead, I will say gentleman first. So I have Mr. Ibunjai, mm -hmm. the CEO of uh, Kukanyai family organizing a great event here on the 28th and 29th of this month. Mm -hmm. And uh, uh, on my far right, I have uh, Ambassador Baji Jiba from Gamtel Marketing. Also on my left, I have Madame Fanta Sidibe, the coordinator of the Kokanjai family um, event. Gentlemen and ladies, welcome to the program. Thank you. ñu seetaan ñu ngi leen a nuyu ci beneen programme yi Gamtel Special bi ñu dee def fii ajuma ju uh, tey nag ñu fas yéene waxtaanee nekkul rek mbiri gamteel lu ñu jaay ak lu ñu jëndante waaye tey nag dañu am beneen euh, si programme yi nga xam ne lu lañ bugg a waxtaanee muy mbaali organisation yi Koka euh, Ndiaye family event bi ñoo am ni 28 ak 29 ci gàttal daal mooy Waly Seeka ak Thione Seeka ñu indi di si jàppale waa réew mi ci loolu euh, dina invite Mr ibu Ndiaye mi nga xam ne mooy CEO bi pour mu wax ñu tuuti rek si history of Kuka Ndiaye Family Foundation bi. waaye asalaamaaleykum wa rahmatullah. ñu ngi leen a ziar si ajuma bi. Mhm. waaw euh, ma doole si Kuka Ndiaye Family bi li ko li ko sabab mooy. Mhm. man maa suma jabar anyway dañ am doom boo xam ne handicap la disable la. Mhm. so fi mu nekk mu ngi 13 years. so. lii daal mu ngi nekk idea bi mu ngi ñëw daal very long time laa ko am si suma xel mm-hmm. Mm-hmm. so ñu dëkkaa loolu mm-hmm. ba fi mu nekk nii ñu bëgg a wan nit ñi tamit rek affaire bi nuñ koy defee waa ci suma la déggee bu baax dafa mel ni Coka Ndiaye um, Family Foundation da ngeen ko da ngeen ko taxawal bi ko sax seen waali doom ngeen ci seet ba tax na ngeen taxawal ko pour dimbale ñi nga xam ne dañ comme dafa am lu manqué seen si ñoom mm. um, tax na ba yéen su ma understand li nga wax mm. moo tax ngeen taxawal foundation bi pour di ci def fundraising ak pour jàppale ñooñu ndax waaw loolu moo tax because of dañ gis ne tamit ok ñu ngi dëkk out mm. te out sax even dafa métti foofu tamit. Oh. like xale yi disabled children si dafa oh. métti si ñoom. Oh. alasan ak seen yaay yi. ni ngeen a war a tekki yaay. so man ma xalaatoon ne tam Gambia fii. ok out comme que mu ngi métti xëy na Gambia mooy gën a métti tamit. understand nga. because uh, fii mënuñoo am facilité si nit. understand nga bari duñ dee am xaalis tamit. understand nga pour mun a toppatoo xale yu mel noonu. ba pare tam fii ñu ngi am benn concept boo xam ne like dañ dee wax ne xale yi comme soo juree façon yi xale yooyu noonu. Mhm. dañ dee foog ne ñeneen ñi dañ dee wax ay ay ah, ay gaaf ñii dañ dee wax ay doomi rab la. Mhm. understand that mhm. things like that. soo bàyyi xel tamit. mun ngaa jur doom bu normal den after nga jur doom bu mel noonu. ba pare nga juraat doom bu normal understand nga. so anyway lii moo tax daal ñun ñu taxaw. pour support pour won ni ñi tamit ne. lii dafa nekka loo xam ne feebar boo xam ne yàlla moo leen ko teg tamit. understand mhm. nga mhm. so dañ ko war a accept. Mhm. so noonu la daal. loolu moo taxawal Koka Ndiaye. loolu moo taxawal Koka Ndiaye waaw li ngeen si jublu am na solo trop parce que ñoom ñëpp ci société bi lañ bokk pour jàppale leen tam lu am solo la. Hmm. moo tax euh, ngeen def lu mel guddi gu mel nii. Hmm. pour jàppale leen. Hmm. am na solo ñun xam nga ñun soo déggee ñu ne ñun suñ soo ñu si gisee. soo déggee ñu ne gamteel ñoo bari njëriñ ah ñun su lu nekk la ñoo dugal suñu loxo. pour mu baax rek ah. ba tax naa maa ngi fi am euh, madame Fanta mi nga xam ne mooy organi mooy organ coordinateur bi Fanta nga wax ñu tuuti rek ci xew li war a ñu Adja maa ngeen nuyu ñëpp ñi seetaan mm-hmm. di nuyu waa Gamsal ak Gamtel yëpp mm-hmm. ndigte last year maa ngi remember ñoo yéen a liggéey woon mm-hmm. this year tamit ñuy liggéey yéen loolu dañ ci war a sant yàlla bu baax wane ngeen seen bopp ne pare ngeen a bokka si lépp luy yóbbu réew bi ci kanam Adja organisation bi fu mu nekk ni daanaka sori neen ci torop macha allah sant nañ ci yàlla fu mu nekk ni niñ ko waxee rek Papa Thione di kilifa mi ci armée Wally Balago Seck xale bu xew ci jamono. ñu ànd ak suñ un Gambian artist yi tamit. ndaxte duñ mun a def te fàtte suñ. suñ bos yi dafa am solo sax. Euh, ànd si ak euh, humanity baan. xale di def lu garaaw ci réew mi ñu wax la ñuy sagal tamit. ndeysaan ànd ak salaam ji clan tamit. ñu tànga ci kaw stage. oncle Ousseynou Ndiaye Signor. waaw waaw fàttewuñ ko ci. Ah, ndik tey soo gisee artistes yi di jóg sax. Mhm. dañ war a fàttaliku démb ñu fi nekkoon. Ah, oncle Ousseynou Ndiaye Signor bokk na ci. te loolu yëpp xalaati si CEO bi la ñu kontaan ci torop nag. Ah, def rafet. oja bés bi dafa doon ñaari bés. Mhm. bés bi nag dafa doon ay bés yu màgga first day bi ñu tuddee ko guddi xawaare lu fi musta am nag su fi amoon tamit géej na fi mhm. waaw mhm. ànda papa ci kaw stage bi mhm. Wally Ballago Seck nga am suñu artistes yu ma fi tuddee nii léegi nii euh, dina nekk guddi boo xam ne dinañ ko fàttale ko fàttale ko bu baax a baax ndig dañ ne at end of bi ñun waa Kuka Njaay family bëggee rek la ñuy li ñuy laajte ak happiness ndig dañ gom ne soo happee lépp la soraan di nga ci mën a kontaan. Mm, eh, waxtu happiness lañ nekk sax ñëpp ay happy. dëgg la kay nag tamit féetu nañ ci wax si side boobu tamit. kay guddi bi nag. Mm-hmm. guddi xawaare. Mm-hmm. foog ma wax ci wàllu ticket bi tamit xojaar. waaw dafa important trop. parce que ba pare. Mm-hmm. dara du màgg ndik dañ ne disabled children yi la. lu ci waay def rek. ñoom ngay jàppale. lu ci waay def rek. Mhm. bu ci séntu Ibou Ndiaye muy ko CEO Kuka Ndiaye famille. Mhm. xale yi ngay jàppale. Mhm. te macha allah tubarfakalla xoja euh, dañ àgg foo xam ne. ñun suñ boppa dañoo toog nit ñi duñu kool. waa Gambie dañu baax. mun a jàppale. naka la ñoo def ci guddi bi. ban waxtu la. VIP ticket si ñaata la. ñun da ngeen jaay ticket bi foo programme bi. lii yëpp because dañ fil affaire si quoi. xam nga. Ibu munoon naa nekk keneen Hoja dem Europe am façon doom bu mel ni noonu toppatoo doomam rek fàtte ci waaye nag dafa toog xalaat ne dafa am ñeneen ñu nekka suma suma réew mm-hmm. xëy na amuñ facilité si amuñ ku leen a jàppale mm-hmm. man suma ko commune waaye not te may doomi réew mi mm-hmm. looloo waral bi si ah, ibu ku baax la ibu ah, ku baax la parce que xam nga ñun lii rek lañ soxla ñun gambiyee dañ bugg dañ xam nga gambiyee dafa bugg a jàppalante te ñun gambiyee dañ buggante soo ah, foog nit ñu génn a jàppale seen moo tax ñun kenn duñu des gannaaw ah ñun ñun waa gamtel gamsel tax ne ma am fi masri baaji dogguma la nag ñaareel bés bi nag dinañ ci ñëw mooy guddi mbette. dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw la wax ni de. dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw <laughs> yoo xam nga ne foog ñu ñëw ci yow <laughs> ah yow doo mën a nekk borom bés ñu laa romb yow foog ñu ñëw ci yow. <laughs> foog ñu ñëwaat ñëw ci ñaareelu bés waaw yow dañu foog ñu waxtaan rek xam nga nag ñu ne ah, bu feccee liir neexee ndey jaay jàpp ca pare kuy kuy kuy dimbale boppam moo neex a dimbale du dégg ñun dañ am social responsibilities muy gamtel gamsel mhm. tax na ñu jàppale képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci loo xam ne dafa yóbbu réew mi kanam parce que ñun suñu réew rek lañ am ñun Gambie rek lañ am ah, so loolu moo tax ñu jàpp ci bis bi masere mi nga xamne marketing gamtel marketing la joge ñu waxtana mom touti parce que la last year defon nañ ko lu olof yi de def nañ ko daaw fekke ko ren dañu baaxantal wa def nañ ko last year ren ñu waat kon xam nga amna luñ ci gis lu baax legi nak ñu waxtana wa marketing department gamtel jere ñu faja comme niñ ko daan defé rek def nañ ko ci at yu bëree bëree bëri mhm. ñu ngi ni di defaat mhm so ah, soo ko seetee daal daw na yaram mhm. waaye tay suñ dimbalé xale yoyu non mhm. dafa melni ni suñ dom yi lañ dimbalé mhm. ndi kenn xamut élek ban façon dom nga muy dégga muy dégga gamtal nak ñom nak every time so len gisé ñuy dugga si hamal xamal ni njëriñu askan bi la motax tay ñu ñëwoon fi ni pour mëna liggé ko ak Coka Njie ndi xam nañ ne def ci ñun di jël sen xaliss